salaamaaleykum téléspectateur Mbour TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar comme niñ ko baaxoo di defee saa su nekk tey nag ñu ñëw seet si ki nga xam ne mooy Serigne daawul Diagne borom noor borom noorul jalaal Ah, di di def médecin traditionnel wàllum faj lépp loo xamante ne nag jafe-jafe la ci nit ki muy wérgu yaramam wala lum ci mënti doon daf koy faj xam naa dañ koy bàyyi rek mu daal di nuyoo ñu xuus ak moom ci waxtaan bi mu wax ñu moom yëf yi naka lu ko dikkee ak lan ak lan lay faj. Hmm, salaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki réew mi mbokki àdduna bi ñoo ngi nii ñëpp gannaaw bi ñu sante yàlla. julli ci yenenteem bi sallallahu alaihi wasallam di sante Suni ñaari wajur ñoo ngi nuyu waa àdduna bi yëpp wa rew mi ñi wa wa bitim rew ak euh, ñëpp rek ñi ngi nuyu dal wa wa set da nan ko def wa ci alquran la ñuy seete ñun wa ci kurus mom la sété alquran mhm. wa dinañ def tamit listiqar mhm. wa fanano nit ki xool ay mbiram euh, lim laaj lépp ñu daal koy def ci kàttanu yàlla. waa jéggi na dem ba bitim réew waa liggéey bi moom jéggi na dem ba bitim réew waaw waaw fépp foo xalaat ci àdduna bi rek moom liggéey bi àgg na foofu. waaw xam nga ñaan moom daa ëmb lépp ñaan moom mooy ngànnaayu jullit nit ki buñ la ko indilee mu ñëw ci yow feebar doo tëb tëb rek jox ko garab. waaw da ngay xool ay mbiram jël turam ak turu ndeyam nga xool ko ñu won la feebar bi nga xamante ni moo nekk ci moom bu dee liggéey la buñ ko def ah, ñu wax la ay tegtal yoo xamante ni soo ko defee euh, génneel ko ay saraxam liggéeyal ko la nga koy liggéey def ko suñ borom tàqale ko loola moo xam jàngoro ju mën a doon nag bu yàggoon ci moom am ci moom i atit bu ñëwé fi ni ci katunu yalla ak mbaxam mom dana saafaraw incha allah. waaw waaw euh, ku rab jàpp mom dañ koy fajj ci lu ya lu dul yag ndax xam nga rap mom bu lay dugg mom mën na doon ngelaw sax dugg la euh, bu la jappé dina dina tax sa xol di naqari dina tax lo loy dugg mu yak ko euh, ku nekkal. la nga bëgg ca moom doo ko ca am nga am ak moom ay jafe-jafe loolu rab da koy def ci nit am na ñoo xamante ni dana leen dikk ñuy daanu kooku bu ñëwee ci kàttanu yàlla fii buñ ko sottee ndox min koy sotti duutu daanu moom dañ koy faj ba mu wér ci kàttanu yàlla du du diire sax ay weer moom bu ñëwee ba xool jëmmam xool liñ ci war a def lépp buñ ko ci defee ci kàttanu yàlla manam day tàggalikook rab rabbi mom mom dootu ko gisati mom rabbi mom moom day tàggook mom ci sase mom inshallah allah ci kàttanu yalla wa bu jigen ju taxaw ji nga wax lolu am nañ ci safara yo xamanteni buñ ko liggéeyee budé ku musta am dom la ci kàttanu yalla buñ ko ko liggéeyalee defal ko liñ koy defal suko jëfëndiko suñ borom dina ko may dom ci luddul yak waaw suñ borom dina ko may doom ci li nga xamante ni du yàgg bu dee ñi nga xamante ni dañoo nekk wàllu bitim réew di liggéey ci nasaraan si am jafe-jafe yi kayit ñooñu ci kàttanu yàlla buñ leen liggéeyalee liñ leen di liggéeyal ci kàttanu yàlla mbooleem loo xamante nii rek ñi ñi ngi koy lijjanti suñ borom day yombal loola bu dee wàllu kayit la walla koo xamante ni eh, danga am looy bëgg di ko lijjanti ak lu mu mën doon rek ci aduna si kàttanu yalla ak mbaxam mom buñ ci jëflante sa aaja dana faju mom ndax amna ay ndomba yo xamanteni dañ koy liggéeyal ñi nekk bitim rew lolu boko ko lepp lépp dugg ci aduna rek suñ borom dañ la ci defal tawfiq mom mom lepp loo dugg ci aduna diñ ci genn diñ ci dugg ci jamm genn si ci jamm te kenn nit dula manal dara inshallah rabbi waaw kooku bu ñëwee moom dañ koy faj ci bu gaaw loolu euh, bagage yi ngay gis leget gi ngay seen ku liggéey jàpp ñaar fukki at bu buñ ci defee li liñ koy def boole kook reen yeeg sunguf yi nu koy booleel bu soobee yàlla bu ko sangoo ñetti fan mu tàggalikook liggéey mbooleem liggéey bu nekkoon ci moom dana tàggalikook moom bu daawut nelaw dana nelaw bu daawut am dara it bu ko jëfandikoo buñ ko joxee ubbeekukaay ki nga xamante ni moom lay ubbi ko bu ko jëfandikoo sangoo ko lépp lum yootu yàlla dana ko ci defal ndam ci kàttanu yàlla. xam nga faj dafa dafa doon loo xamante ni dafa doy waar ndax mën ngay faj nit nit ka ngay faj am na noo koy fajee noo xamante ni mboolem lu ko daloon rek day daal di ñëwaat ci yow na ko doon faj moo tax faj daa di jafe. faj dafa don lo xamanteni dafa jafé ndax nit ki boo koy faj balaa nga koy faj da nga xam febar bi nga xamanteni moko ko dugg febar bi nga xamanteni moko ko dal nga xol ko xol la nga ci wara def budé ay sarax la yu yuñ koy digal nga defal ko lola dindil ko febar, bobu nonu faj ko ba mu wër ci katanu yalla febar bu nit mën febar ci aduna bu ñëwé fi buñ ko xolé ci allah yalla mom dañ koy faj. Euh, rendez-vous yi euh, euh fi nga xamanteni fi lañ nek ni euh, bu budé ñi ngi Mbour ñi ngi fi ci Grand Mbour bu ñu Dakar mom ñi ngi west Foire wala ñu nekk Almadi waaw fofu lañuy ñuy nekk daanaka ku nu soxla mom bu ñu déggantee ci kàttanu yalla aaji jo am itte jo am ci allah yalla ak mom, mom sey aaji dana faju mom, inshallah allah. waaw euh, liggéey nag moom ñaare moom lépp luñ ciy def rek dañ ciy seet suñu digganteeg euh, yàlla ndax léeg nga séq ak nit loo xamante ni yow leer na ne ki li nga séq ak nit ki def nga ko ba mu mat waaye euh, xaj na nag yàlla moo bind te yemalewut doomu aadama yi moo tax lépp luñ ciy jànkonteel rek dañ koy daal di muñ rek sante ko yàlla ndax yombul moo tax ndax ñaan yombul. daanaka euh, mën ngaa gis ku ne tamit di ko def waaye yàlla mooy seet lu ko neex mu def ko cib jaamam muy cërale mooy mooy xool ku ko neex rek mu def ko def loolu ci ci ci jaamam ñun nag suñ borom daa def ci ñun loo xamante ni benn feebar dong mooy li nga xamante ni moom moom lañ mënta faj mooy nit ki nga xamante ni moom daa faatu waaw ki nga xamante ni daal faatu na kooku moom suñ borom rek ko mën a yëkkati. waaye lu dul loolu feebar bu dal nit ci kàttanu yàlla ak mbaaxam bu ñëwee fii dinañ ko faj. waaw waaw loolu moom ñi ñi ñi ñuy jëfa jëflanteel euh, ci bitim réew maanaam réew yëpp agi bi maanaam fépp ñu fay jëflanteel bari na ñoo xamante ni ay at a ngi nii ñi ñoom te mosuñu noo gis te ñaare euh, nit ku sori mën nga ko ñaanal tëjul ko duggal ko lu mel ni xalwatu ñaanal ko ay ñaani kurus génneel ko ay saraxam lam doon sàkk suñ borom defal ko ko am na ci ñoo xamante ni mën nga leen a ñaanal ñi nekk bitim réew soo ko ñaanalee ba pare ci GP bi rek nga koy dugal mu jot ci waaw fu nit nekk ci àdduna rek moom nekk ci bitim réew ak la ko wër maanaam buñ ci jëflantee pour ñu ñaanal la nga jot ci loolu dana yomb danan la ñaanal nga jot ci ñu tok ci sun sijada yor sunu kurus tamit manam arla la taxawu la sam la ba li nga bëgg lepp suñu borom defal lako ndax ñi nekk bitim rew bari na ci ño xamanteni dañuy sonu lool te dañuy wo it ku leen dimbali danaka motax tax euh, ña nga xamanteni suñu borom boole nañu fa ak ñom euh, euh, ñom yaakar naa ni bañ suñu borom boole ñoom ba na lool waye yaakar ni wuñ ko ndax eh, ñi ngi sant bu wér wér wér ñi ngi sant bu wér wér waaw waaw waaw loolu moom moom yomb na lool maanaam defal nit mu gis ba pare daal di lay won ginnaaw pour nga dindiwaat ko yomb na waaye eh, nit lépp lu muy def rek na ci jiital yàlla soo ci jiitalee yàlla nit ki lim la waxut yow fexeel ba la nga waxanteeg moom rek nga daal di koy matale def ko léegi la ca des moom ci moom lay desee nit nit dana jóge fu ne ñëw fii joytunu lu ne nañu dem nan fu waaye suñ borom daa dogal moom ku sa aaju narta faju moom doo teg fii sa tànk moom loolu moom loo mën a yor ci àdduna it moom boo sa aaju narta faju boo fii doo fi teg sa tànk te it képp ku ñuy jëflantee it dañ ciy seet suñu digganteeg yàlla. Eh, sunguf bi bi moom eh, kumte lay dindi ci nit nit koo xamante ni mënta am dara dara lum yaakaar mu tas lum dugg mu yàqu xaalis bu mu yor du taxaw ci moom. buñ ko ak cuuraay yin koy booleel ak parfum yi jox ko ko mu sango ko 9 jours ci katanu yalla euh, dina dina dina bari alal te it lépp lu mu yor suñ borom dina ko ci defal barké waaw sunguf bi ak bu ñuul bi ngay gis mom boko sango ci katanu yalla mom la lay wax ne la fi juroom ñaar fukki at liggey du la japp te liggey bu mu fekkon ci dana ko dindi wa sunguf bi ak poudre bi waaw ah, bii nii day dox ci bayre day dox ci wërsëg day dox tamit ci kaaraange waaw sunguf bii nii ba ci ñi nga xamante ni sax dañoo bëgg ay borom kër yi tubaab wala ñu bëgg lu mel ni tubaab nasaraan juróom-ñetti sunguf la yu bokkul ñu boole ko juróom-ñetti sunguf yu bokkul la huit sunguf yoo xamante ni moom la ñu boole yoo xamante bu dee jigéen joo xamante ni danga bëgg boroom kër te bëgg koo am mu gaaw buñ la ko joxee boole kook liñ koy booleel ci kàttanu yàlla di nga ko am bu dee koo xamante ni mënta am doom buñ ci defee liñ ciy def jox ko ko mu jëfandikoo ko mook boroom këram suñ boroom dina ko may doom bu dee koo xamante ni fu mu toll boppam day mitti guddi di mitti bëccëg buñ ko booleeg cuuraay liñ koy booleel mu di ko suuroo day kook bopp buy mitti bu dee koo xamante ni daa ame biir buy metti suñ ko ci compalee mu xo mu xooj ko naan ko ci kàttanu yàlla biir boobu bu matoon ak moom ay at bu ko bu ko naanee suñ boroom da koy tàggaleeg moom moom sunguf boobu sunguf bii nag moom ku saytaane jàpp la bii ku seytaane jàpp mbaa rab bii buñ ko ci joxee liñ koy jox mu boole kook seetu ci kàttanu yàlla bu ko jëfandikoo rab dana ko bàyyi seytaane sa dana ko bàyyi sunguf sunguf bii sunguf bii nag ngay seen bi moom day dox ci lépp waaw day sifa day day saafara bépp jàngoro bépp jàngoro boo xamante ni nekk na ci nit da koy saafara rawatina ñi nga xamante ni dañuy liggante ay kayit ngir bëgg tukki wala ñi nga xamante ni dañoo nekk bitim réew te amuñu ay këyit buñ ko jëfandikoo boole kook kayiti di rew moma ñu nek suñ borom dana jàppandal seen mbir yépp yépp yépp ci katanu yalla mhm. wa sunguf bi bi nana lay andal. ak xoliti soble manam lo bëgg bari le boko ci défé ci katanu yalla suñ borom dina la jox lolu bo bëggoon am auto sax boole Lubo lu bok ci auto di jëfëndiko di def sarax yi ngay def ci katanu yalla di nga am auto budé ko koo day commerce wala koo xamante nii day day day jaay jënd ak jaay bëgg a bari la muy def suñ ko ci joxee mu boole kook la mu koy booleel di ko jëfandikoo ci kàttanu yàlla suñ boroom dana ko bari leen loolu ba mu bari leen ko lool ci kàttanu yàlla. Euh, ñi ngi nuyuwaat ñëpp rek comme niñ ko waxee woon di siyaarewaat ñëpp rek leen wax ne leen fii moom euh, euh, daara yi Serigne Touba la di kër sëriñ Saliou kër borom daarul muxti fii daal Euh, li ne ci ñun suñ boroom a ko def ci ñun li suñ boroom def ci ñun nag dañoo jug pour dimbali jaam ñi moo tax sëriñ Abdul Baaxe Mbàkke euh, tudde nu sëriñ Daawur Jaañ boroom nóorul jalaal ndax mooy leer te loolu it euh, mooy mooy li nga xamante ni moo am ndax ku yàlla dimbali daal ba nga ñëw fii walla nga woonu téléphone foo mën a nekk ci àdduna boo feebaree sax boo ñëwul li ñuy def bu ñu ko defee ci kàttanu yàlla suñ borom dana la dana la dana la dimbali it ca loola ci kàttanu yàlla ak mbaaxam kon jërë ngeen jëf. comme ni ma leen ko waxee rek Serigne daawur Diagne boroom Nuurul Jalaal ah képp koo xamante ne soxla nga ko rek da ngay woote ci numéro téléphone yooyu di défilé ci suuf bépp aajo bu ngeen mënti am yéen ñi nga xam ne da ngeen a am jafe-jafey tànk ñi nga xam ne da ngeen a mënta am doom wala yéen ñi nga xam ne mën nekkoo leen sax Sénégal su ngeen wootee ci numéro téléphone yooyu di défilé ci suuf rek di ngeen jot Serigne Daour Diagne Jalaal lépp luy jafe-jafe wala muy tawat rek boo yegsee ci moom bu ci suñu borom àndee rek sa aajo dina faju gis ngeen nag li nga xam ne moom la fi jot a leeral lépp expliqué na leen ko ba mu leer ah comme ni ko waxee rek ci alquran bi la ñuy njëkkee eh, def xasaayit yi bu ñu dogo jublu ci liggéey bi mom ah, moom nee na dafay seet li muy kurus ci alquran lay seet dafay dugg xalwa it lépp lu ngeen bëgg rek ah, muy jafe-jafe bu ngeen mënti am bu ngeen si ko ci kàttanu katanal suñu borom dina ci dina saafarawu leen jox rendez-vous rek xam naa ba beneen yoon euh, ci Mbour TV.